ba tey. waaw ñu ngi waxtaan ak kurma ba tey ñu ngi koy waxtaanee. ba tey jii ma dellu si. Mhm. bàyyi mu ne tax wa tahsilu nafaqatin takfil ayal ma wut na dund boo xam ne bu doy ma bàyyee ko njaboot gi bàyyi dépendre toon ci ay taalibeem. la preuve en est que ku xam ne kurma mu ngi ci soroon. Jaafar Numeyri bu Soudan 1972 mu ngi ci soroon. Burkanu. Burkanu mu ngi ci soroon. Jamal Abdou Nasser mu ngi ci soroon. Roi Faisal ñëw na fii seet si la Sénégal Sanusi euh, Sean Lyne bu Chine euh, ñooñu ñëpp boo waxee ñu def alors que bi muy génn àdduna Oustaz Ibrahima Mahmoud Diop nettali nañ ci digg bayaalu mm-hmm. Medina Baay bi mm-hmm. mu ne ay bor la fi bàyyi Cheikh Alhaji Abdoulahi doomam taawam moo fay lenn li Mohammed Dikko Yusuf MD Yusuf of, from Nigeria moo fay leneen li can you imagine imaginez-vous président bi ma la wax ni min Hong Kong li Bangkok jógee na Hong Kong dem naa Bangkok wa qasru Roma dem naa Rome dem naa Belgique dem naa euh, al dem naa euh, Irak dem naa Libye dem naa euh, marok dem na dem naa dajee naa ak ñëpp dem na dem naa dem naa ba dem naa ba dem naa ba émirats arabes unis Dubaï Cheikh Zayed ma ànd ak Cheikh Mouhamadul Mamoun sama soxna soxna Balqis fekk. Cheikh Abbas Zaki nga xam ne nekkoon na ministre de l' économie dinaa dellusiwaat ci li mu bindoon après ñu ñoom dellusiwaat. laa ilaaha Al Nahyan bu bu bu. Émirats arabes unis Oustaz Barham Diop dafa nettali ne ci ci. macha diplomatie sëriñ bi ma ne Abbas Zaki mi nga xam ne nekkoon na euh, ministre de